Thank <laughs> you. toujours dans votre acte du jour de ce 30 mai 2024 Fitch VIP People TV ginnaaw bi nga nommé nañu kii nga le nouveau directeur des moyens généraux foofu palais de la république du chef Omar Diagne de yëkkati ay kàddu nag yoo xamante ni maanaam tabax juma palais de la république alors que dañu nekk ci république suñu nekkee ci république dañu war respecter l'époque loo xamante constitution bi le le tëral le palais de la république ma sàmba moomu ko ma demb ko alalu sénégalais yëpp la bépp président bu ñëw soo paree da ngay dem sa donc mu wax nañ ko fa tabax la soulever li nga xamante ne mooy polémique dama bëgg ñu déglu ji ki nga xamante ne mooy réaction Ibou Fall bi nga xamante ne ci plateau i rajo bu mu ko seqeex ki nga xamante ne mooy DJ Boubacar Diallo yan kàddu la ci yëkkati bëgg bëgg-bëggam mooy ñu tabax jàkka ci ci ci palais bi. Mm-hmm. alors mu mu jur réaction yu bëri également si réseaux sociaux yi. Mm-hmm. Euh, parce que tey boo xoolee sax biétiste bu bés bi le jour si la xëy. Mm-hmm. jàpp ni xëy na xalaat la boo xamante ni waroowul. ak nu république di doxee. parce que bon bu ñuy wax palais ba bu doon loolu kese peut-être que ki njëkk a nekk président de la république. fii Sénégal chrétien la bu fa defoon église xëy na kon tey le débat. Euh, dina posé wu donc jur na également réaction yu yu bëree bëri ci proposition bi nga xamante ni def na ko Cheikh Oumar Diagne. mais da nga may waxal sama auditeur yi lan mooy proposition bi lan la wax. wax naa ko léegi mooy tabax jàkk palais ba ci biir palais bi. Mhm. oui c'est ça. Mhm. oui. Euh, ñëpp di tëb di daal. ah ma ne ñëpp di tëb di daal. waaw waaw réaction yi bëri nañ en tout cas. Hein? oui. selon fu ñu féete nag. ah hein? <laughs> nee naa leen la politique c'est pas fait pour tout le monde on donne, on donne la voix, on donne des postes, on donne des responsabilités à des gens qui n'en ont pas les compétences. C'est pas autre chose. <laughs> ah 54 pour <laughs> des Sénégalais pensent comme lui c'est ça qui est dangereux. ah non ce n'est pas parce que dañ leen fal que 54 ñom cent ñoo leen fal. ñoom la ñëpp ils pensent comme lui. ñom hein. la dal ñoo leen jox légitimité buy tok di wax yu kenn xamul. ñëpp naan mm-hmm. Mm-hmm. man légui euh rek <laughs> c'est n'importe quoi. mais non, quand même. Euh, hmm? xanaa kon dañuy defaraale benn église pour catholique yi à côté. dama ne la premier coup de pelle sax la ñu warul nangu. Tu sais, on est 18 millions de Sénégalais hmm. qui ne réfléchissent pas de la même manière, qui n'avons pas la même religion qu'eux. Ben Il faut même pas y penser. J'espère que les Nyefanek, ces patrons-là, hmm. tu sais qu'on en aurait, dans une république normale, hmm. ils seraient limogés. D'accord ah Ibou bàyyi ngay def. tu dis une ânerie on te vire. Ibou vous baille ngay def. dans une république normale. Hmm? il aurait été limogé depuis 24 heures. Ibou vous baille ngay def. ah toi aussi. dañuy maslaa rek waxtaan rek ba juboo ah waaw. hein dafa juum rek. non Boubs. Hmm? c'est extrêmement grave. dafa juum. dama ne la dans une république normale. il aurait été limogé séance tenante. waaw mais Ibou xam nga. nettali naa la ministre boobu.

Non, non, ça, ni, ni, ni. Non, voyons, dans une république normale, il aurait été limogé séance ah, mais il nous, normal, eh, normal non non non non non non non normal mais mais mais mais mais mais, euh, mais, proposition c'est vrai que ni si souvent que ni on est dans une république et la république elle est laïque Il question de gum questions yi moo xam ci wàllu diine yi ak ci il faut ñu mën ko mettre de côté. Mm-hmm. et si xoolee depuis que nous sommes ñu nekkee ba léegi bëri na ci sorties quand même euh, ça pose problème alors pourquoi est-ce que c'est parce que euh, les gens wax naan dañu mm-hmm. ils n'ont pas été préparés à ça. Mm-hmm. et que il faut également qu'ils apprennent à mieux coordonner cette communication ci est yi parce que nous, ñu ci ci communication ou euh, membre PASTEF la New yor manam parti bi nga xamanteni mom mo moo leen yóbbu ci pouvoir mais yoruñu yoruñu communication wala nga xamanteni mom modi moo di kilifteef gu ñuy incarné voilà ci ci ci ci état bi parce que amna yo xamanteni il faut nga nango summi mbubb bi nga soloot bi ngay wut politique tege ko ne sol maintenant mbubb bees bi nga xamanteni mom nga am que muy ministre conseiller wala muy leneen leneen parce que xam un ministre conseiller parce que moom li mu wax nee na président la ko wax président Diomaye la ko wax. Mhm. mais tontuwul waxuñu lan la ko président wax. parce que man ça m'étonnerait que mu mën a nangu mais en fait c'est même pas envisageable xel xel mënu ko nangu. Ah, mais même si euh, conseil buy jox conseil au président mu que ça se retrouve dans la rue. dans la rue exactement c'est une faute professionnelle moo tax ma ni il faut ñu coordonner seen mais qui il doit être limogé. Ibou bul dax xar rek. c'est une faute man dama am question pour yow. Hmm. buñ fa tabaxee jàkk ñu est-ce que église il faut même pas l'envisager il faut même pas l'envisager et un conseiller qui parle au président et ensuite qui le raconte à tout à toute la planète Donc non il n'est même pas conscient de sa fonction c'est de l'incompétence caractérisée le conseiller qui, qui, dont les conseils se retrouvent sur la place publique. Mais attends, il ne sait même pas pourquoi il est là. Et tu le vires. Et... Eh. Un conseiller du président doit être discret. Mais conseiller, c'est à partir de Wad qu'on a commencé à identifier les conseillers et les ministres conseillers. Quand la République savait se tenir, donc quand Kan donne conseiller président. La République ne sait plus se tenir correct ko vous <laughs> Ibou Ibou li ngay def république la république a toujours su se tenir. man les conseils que je connaissais. Hein, hum. c'est parce que vraiment il y avait une proximité. dama xamone mais tu c'était pas des gens qu'on retrouvait dans les journaux que do len Fait ci dara. ñu président. mais bien sûr mais parce que le conseil justement il est personnel et intime après libre à lui de faire de, décider comme il veut mais ça, il décide bien à faire. ça veut dire qu'il il préside même pas c'est toi qui décides même l'autorité du président est remise en question le conseil n'existe pas médiatiquement <laughs> médiatiquement le, conseil n'existe pas il fait ce On ne peut même pas voir son visage dans les, dans les journaux. da ngay xëy raser les murs dugg ce bureau ñu laaj la def des rapports. tu donnes des tu travailles bu kenn ne la on ne sait même pas que tu es un conseiller du président loolu mooy dëgg. Parce que cette histoire d'exposer ses fonctions-là, mm-hmm. c'est une manière aussi de faire du lobbying je suis important, j'ai de l'influence accueillie. Mais attends, les gens qui ont besoin du président, ils viennent te voir à minuit, ils l'enveloppe, ils te Bobby. Non, ils te Bobby. business, hein. Tu crois que c'est innocent ces choses-là Moi, hmm. ah, président, je lui fais prendre toutes les décisions. Mais il y en a qui en font un commerce. Tu vas lancer un projet à, à plusieurs dizaines de milliards. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui parle au président, l'oreille du président alors c'est ça c'est ça le, problème un conseiller du président est anonyme et. mais comme ça voilà ci que tu travailles que tu donnes tes avis tu travailles sereinement kenn du la def de pression tu es à l'abri de tout ça mais si tout le monde sait que tu parles au président ce cœur ne désemplit pas. Parce que tout le monde voudra te faire passer des, des, Message. des messages. Et il y en a qui en font un commerce. C'est ça ah. kon ñoo déggandoo réaction bi nga xamante ni Ibou Fall jël na ko jëmale ko ci li nga xamante ni Cheikh Omar Diagne yëkkati na ko pour tabax jàkk lu mu xamal sénégalais yi parfois dañuy foog ni ñoom ñoo moom palais wala liñ leen nommé ñoom ñoo ko moom ñoom ñoo war a alors que dañu tënku ci constitution ñu nekk ci benn état boo xamante ni laïcité moo fi am ñu nekk ci république boo xamante ni dafa tënku ci li nga xamante ne mooy constitution te tënkuwul ci charia ndaxte Léopold Sédar sangor moo njëkk nekk président de la république du Sénégal occupé palais bi su ko neexoon mu tabax fa église parce que catholique la mais tabaxu fa église tey suñ fa tabaxee jàkk am ay chrétiens yu nekk ci biir foofu di liggéey ci palais ba waxtu julli jot julli di dem julli ji ci jàkk ji alors que chrétiens yi ñu nekk fa war dem église est-ce que ñooñu duñu réclamer église je crois que dafa am ay xalaat yoo xamante ni nit su koy xalaat dafa war a xalaataat bu baax ci lan lay xalaatee tey nag du caagin que da ngeen nekk ci palais bi wala ñu jox leen yenn mission rek war ngeen décider au nom des sénégalais tey yaakaar naa ni tey kii di président de la république bu mu yëkkatee kàddu daf ko waroon dàq fofu ci palais ba limogé ko sur le champ parce que dañuy fàttali ci république la nek ni mu amé sañ-sañ xalaat na jàpp ni palais bi daf ko bokk ak 17 millions de sénégalais té 17 millions de sénégalais yépp bokkuñu ak mom xalaat tay lan moko permettre moom mu wara jël xalaatam war ko imposer les 17 millions de sénégalais il faut bien réfléchir avant de parler en tout cas muy analyse bu am solo bo xamanteni ki di Ibou Fall def nako jëmele ko ci cadre yi nga xamante ni di Cheikh omar Diagne njëkkati nako pour tabax jak fi nga xamanteni ni moy li di palais de la république mu doon une violation de la constitution Sénégalaises. sénégalaise bo c'est flagrant. <laughs>